juróom-ñaareelu xaaj bi ci juróom-ñaari xaaj yi bi isaaxa amee ñeent fukki at mu jël jabar ku ñuy wax rebeka rebeka seex ñaari doom yu góor ki jëkk a juddu tudd esaawu ki ci des yanqooba bi ñu demee ba màgg esaawo weccoo ak yanqooba cërub taawam gannaaw gi yanqooba nax seen baay isaaxa ba mu ñaanal ko li esaawu taaw bi yeyoo woon noonu yanqooba dawee kër ga ndaxte esaawu meroon na lool bi yanqooba nekkee ci àll bi mu daldi gént ci gént gi mu gis yéegukaay bu jóge suuf tey laal asamaan ay malaakay yàlla di yéeg ko wàcc ci yéegukaay bi yàlla taxaw ca kaw gént gi mu ngi tekki ne musalkat bi di sëtub yanqoba mooy doon yéegukaay bi lëkkale suuf ak asamaan mooy ràmmukat bi dox diggante yàlla ak nit ñi bakkaar moo teqale nit ñi ak yàlla noonu yàlla dig yanqoba li mu digoon ibrahima ak isaaxa maanaam askanam dina doon xeet wu yaa te àddina sépp dina jaare ci askanam barkel gannaaw gi yàlla soppituru turu tuddee ko israyil israyil amoon na fukki doom yu góor ak ñaar fukki doom yooyu ak ñaar ñooy fukki askan ak ñaar yi sos Israyil fii la nettali bi yem léegi ma laaj leen fukk ak juróom lu tax Yankoba doomu Isaaxa dawee seen kër yanqoba dafa nax baayam mu barkeel ko fi mu waroon a barkeel taaw bi di seexam esaawu noonu yanqoba daw ndaxte esaawu dafa meroon fukk ak lan la géntu yanqoba tekki bi muy tukki mu ngi tekki ne musalkat bi dina bokk ci askanu ba dina mel ni ab yégukaay buy jóge ci suuf tey laal asamaan musalkat bi mooy ki delloo ci kóllëre diggante yàlla ak nit ñi